Euh, nekk na ci jafe-jafe waaye moom gis nga ko mi ngi nii dañ ko fekk tey ci ay place am ci place am lañ ko fekk ni mu toog kon kii moom kenn du la naatable ne moom am na métier wala amul métier waaye nag euh, comme dugg na niyoo du ñu def nag lu dul door waxtaan bi nuyu mbay Difoncé ginnaaw bi ñu ko nuyoo pare laaj ko nag moom Mbaye Mbaye Difoncé fan la nekkoon ndax gaay yi nam nañ la ana mbay defense fu mu nek ci lan la nek wa ma ni rek di and ak suma doomu nday ñom tafa ja sam xiyaan mor babu alla xam ma fi ab di nuyu timit sama patron kasse borom moteur fi di nuyu suma doomu nday njaga xam ak jibi mbot ak gaay ak géejaay yeb dal wa gis nga ak waa défense waa défense moom ñooy lépp défense ñoom bu doon ñom lambay ñaaw di len nuyu nak lu bari di leen tiitoro waa défense ak pas charay bek asalem bek yëpp fépp bu jaaykat pièce nekk daal lay bege dal di la ñaanal nga am jamm jërëjëf euh, Mbaye yaa ngi ci euh, émission suqali làmb comme ni ñu ko waxee saa su nekk rek émission suqali làmb lépp loo xam ne rek luy suqali làmb la moom ñu fas yéene waxtaanee tey nag ñu bëgg a seq yow ay waxtaan ci luy suqali làmb waaye tamit ci ci euh, yi nga xamante ne amuñu métier ak mbër yi nga xam ne dañoo nekk ci biir làmb te amuñu métier nga xam ne bu bu làmb ji kale rek ñoom seen i mbir kale Mbaye ana lan lay wax ci loolu. waaw loolu moom mbër moom mbër mu ndaw laa la wax man tay bu doon sama métier may def kon day metti mun na jëlé bu jambor wala may égrésé mais yalla dimbalé na bi lamb ji calé dama and ak sumay dom nday di liggéey di liggéey ba may ngi sant yàlla bu baax wax deug yalla kon mbeur yépp dañu wara am métier mbeur da ngay liggéey parce que bo liggéey da ngay ñaan ñu lay yapp to gor waro nangu kula may kon niki da nga wara am métier di gor gor di liggéey bu baax diko bolé ak say entraînement mu ngay 5 h du matin dem entraînement foy liggéey ba 5 h boko waxé sa patron may ma dem entraînement mu may la mais lama tax gisatuñu ci lamb waaw làmb moom xam nga dafa am nu mu fa demee quoi affaire dafa début bi dafa dëgër moo tax ñu teel a daw génn parce que ay góor lañ te ndeysaan dafa am ñoo ne bu ñu bu ñu daanee tey ku ci mel sama booy bi heure su ma bëree bu ñu daanee da koy metti du lekk du def dara ma ba xam ne am naa su ma yeneen rakk yu war a mën a génn xam nga moo tax ma nekk suma dóor waar daal di joob sonalatuma kenn teewul maa ngi entraîné ba tey ni may wax ak yow nii bëri na mbër yoom tey bu ñu jàppandoon fii nii day metti man loolu wóolu naa ko parce que gëm naa suma damay entraîné entraînement rek laa am. deux mois yi toog entraîné ma te couvrement moo taxoon. parce que da ngay respecté li waa réew mi wax. mais sinon kon dama ciy nekk. man damay tërën. billaay dama bëgg sport. dëgg la sport moom dama ko yàgg a bëgg. parce que njaga mi ma doon yóbbu entraînement moo jim mbote xam kon tey man yàgg naa bëgg entraîner daal. Mhm. waaw sama deret la ne. Eh, dëgg la Mbaye macha allah am na solo comme ni nga wax rek waaye ginnaaw bi Mbaye eh, waxee nag eh, mbëd am wéccee wax lépp ci làmb du ñàkk ne yow bi nga gëjee bëree am na xalaat boo xam ne xëy boo ko xalaatee ba wax ko ñi lay dégg tey dund làmb xëy na dina nekk lu jariñ làmb ndax làmb xam na ne fi ne nii sooxe na bu fekkoon na Mbaye am na benn xalaat boo xam ne war na ko xalaat ñi nga ne ñoo war na koo xalaatal ñi nga xam ne ñoo seq làmb ban xalaat lay doon. parce que imagine ben ponkal jël 200000 nga jox ay ticket. man 200000 mun naa ci jënd ay pièces am ci bénéfice te du ma sonn ma gëna xam quoi mais jël sa 200000 jox ko ñu lay jox ay ticket lool du yoon bu ticket yi jërul duñ la fay. mais est-ce que nekkul nak mbay tamit tam kasse bi nak bi ngeen yokk mbëri mag yeeg yu ndaw yëpp kasse bi ngeen yok ndaw tay xam tay mbeur mu ndaw dañ ko wara a jox akam waxoon naa ko ci benen émission. Mhm. mbëri ndaw yi tay dañ leen wara fay par téeméeri junni premier combat yi. ñaata la ñuy fay mbeur mu ndaw. ay cent mille lañ leen di fay. cent mille francs. man sama premier combat quarante mille laa bëri ñu jox ma avance dix sept mille cinq barke yonent yàlla Mouhamed. yàkkan la woon. match bi numéro 2. à 2009 boobu booy lapp lapp yëpp bëriwul mu duma yi métti ma daan ko bëriwaat 2011 daan ko sama yeneen may profité di ci jaare di jaale kii Jackson quoi di ko suuf sedd ci kawam. di nuyu Falloram daan di nuyu tamit Mandela ak Boy Bawol man ñooñu daan ci làmb man ñi daan du cuune waaw koy mbay nag fi ñu war na doole sax foofu la mbay mbay mbay noo mbay fi ñu war a doole foofu la ndax mbay dañoo gis mbay dafa jékki-jékki rek am tur ci làmb ji gisatuñu mbay mais mbay ana mbay ak mbër yi dajaloon ana mbay waaw tey boo xool ñi ma bëreel tey mel ni booy bool laa ci gis kuy bëre man ne laa tukki na Fallou Ramdan bëreetul sa copain sama doomu ndey <laughs> bëreetul xam nga Jackson yàlla jël na ko bil numéro 2 bëreetul kon nga xam ni kon làmb doxul mais Mbaye ban écurie nga nek non man instant bi ni ma ci Ama balé la newoon di ko au passage. ak wa pikini yop di ñaanal timi balé Junior. yalla yëkëti ko. mais ñun la gisé ñu laaj la loolu yow dañ lay gis lu bari yak Balla gay fu ñu gis Balla Gaye gis la fa. lu wara a wala suñu doomu nday la man Tafa ak jazz mi Balla suñu way la dal parce que demb dañ ñi déggante suma xarit la mom dañ and ci lu bari mom bim dama and ak mom ci neex and ak mom ci naxar waaw man ak mom dañ yag and koku man ak mom jeeg dess ci la ko ay frère lañ waaw di len nuyu ñep wa waa way bi yep nak ku lim juum quoi. mais nak bëggoon na xam bi ngay door ci lamb ci ban écurie nga ñëkke waaw bi may door ci lamb maa ngi nekkoon ci góor gi ibrahim jaay <laughs> borom ceebay ñor <laughs> borom mbëri ba len war bo maa ngi ci mom waaw fofu yalla xam na ni sax billahi wallahi dama fa doon rayante sama gaay muna mën ma sédé ñom tafa ay allah yi ay caas dama doon ay mbapat yi daan mhm. billahi wallahi wa ta'ala bam boole ma ci nit ñi di ma xel yàlla def mam benn tolof tolof xam rek mu mu mer daal waxee xolom mm-hmm. mais paa bu baax la tamit dañ koy nuyu parce que dafa bëgg ni ku am jom mm-hmm. li ma waxoon loolu man naqarewu ma sax mm-hmm. parce que tey ku la wax sangul sa taara la bëggal xam nga su ma jugee ma reyante dem doxul ma xam ne làmb ji du suma cër ma daw génn nekk ci leneen di nuyu Mbaye Dimanche numéro 2 bu baax di ko ñaanal lu waaye li ma perte ci làmb rek yàlla na ko yàlla may booy boobu noonu tamit. mais déggu naa ci benn waxtaan quoi euh, ñu lay laaj mbay benn écurie ba Balla Gaye di retaan écurie boobu nan la demee woon. écurie boobu ba daan mbooloo woon xam nga ñoom tawa xam nga ay du xam nga ay vieux mbay xam nga gars ñoo sañcoon écurie bi quoi. yàlla tamit boobu dañ fa ay xayda tamit ma koy nuyu xam nga ñoom ala booy yëpp xam boobu dañ doon bëri ay mbaba tamit di daan. Mhm. dem ba tey mu naan booy bëri tey suñu bëggee làmb tey mhm. am licence mhm. jëmm ji moo tax barke alxuraanu karim parce que maa njëkk a xaaju dem bëre 2009 la ala boo ko ñu nee samay âge mooy booy bëri bëri booy xool Ama Baldé bëréwul Siteu bëréwul Boy Niang bëréwul Sa Thiès bëréwul man 2009 boobu laa ñëw fayit suma live xam nga wane sama bopp affaire yi tar xam nga ñu nekkaat ci leneen daal di ñaanal tamit suma grand daaw da sekk di ko ñaanal yàlla yëkkati ko waaw parce que dafa métti di ko ñaanal yàlla yëkkati ko bu baax di nuyu suma doomu ndey Glass Icon ci Italie di ko nuyu bu baax moom tamit parce que suma dëkkandoo bu baax la jërëjëf mbokk yi yéen seen émission suqali lamb comme ni ñu ko saa su nekk rek mbër mu nekk ak foo mën nekk daañu jëw euh, daañu jëw jëli la ñëw seq yow ay waxtaan te nag ñu ñëw fii nag défoncé fekk fi mbay défoncé seq moom ay waxtaan euh, mu nekk champion waaye gis ngeen ko macha allah mbër day am métier mbër day am métier bu amee métier rek bu làmb kalee du am benn problème waaye tey nag bëgg naa ñu mbay ñu waxtaane loo xamante ne nii ndax fi mu toll bu ñu waxan ciy dëgg rek lambali le amon amatul manam sponsor yi dem nañ kasse yi ser na te mbay jafe-jafe lamb yoyu tay bu fekkee amna am na conseil bo xamné ne ko conseil mbeuri nga xamné ñom lañuy woyé VIP ak promoteur yi nga xamné ñom ñoy taxawal lamb yi lan nga leen di wax. wa promoteur yi lamb ji nekul ay VIP da nga fi wara bëre mu neex xam nga tay mama Lamine double moteur koku mëna ci lamb modlo Ama balde bi bu ñu lamb day neex. Balla Gaye moog Boy Niang bu ñu ko fayee xaalis bu bëri parce que combat boobu. mais xaalis bu bëri boobu nag lay wax. waaw non c'est normal parce que amul lu muy ci ñaa Boy Niang champion la ñu ngi koy nuyu au passage mais moog Balla Gaye tey Balla Gaye amul lu mu fay trouvé su ko Boy Niang daanee day métti ci moom te bu ko daanee dañ naan naa ko. mais combat boobu jàpp nga ne euh, euh, maanaam palmarès maanaam palmarès su mbëri mu a boole wala xaalis. non palmarès mu leen boole a boole. xaalis boobu laay wax yow xaalis boobu mani sponsor sponsor bu ñëw taxawal boobu combat bu ci mën a jàpp ba combat boobu taxaw mbay nañu waxante dëgg yombul. dañuy woowaat gars yi rek ñaanal yàlla li Nicolas yàlla génnee ko fi Aziz Ndiaye ñëwaat Gaston Mbengue ñëwaat parce que ñooñu ñoo ñooy làmb nag coolu coolu ñoo ñoo doon tëgg combat yi maji de Aziz Ndiaye Gaston li Nicolas ñooñu tey làmb li mu fi doon rëy ñoom ñooy tëgg yenn combat yi mag yi ñeneen ñëpp dañuy taaba taaba rek nañ ma baal ci kaddu bi na quoi mais ñeneen ñëpp dañ koy dañ koy taxale noonu la fa demee quoi pour ko am nañ nag ñu ci am jom ku ci mel ne Dieng mi ngi ciy béy waaram bu baax ay saam ñoom ñëpp ñu ngi góor góorgóorlu ñoom Assane xam nga ay Gibson prédiction ku nekk yaa ngi ciy jéem daal mais tamit doole yemul ñooñu liñ mënoon kenn mënu ko ba ci liggéey bi sax li nga mënoon mënatoo ko des fois dëkk bi moo def nii kon daal nañ ñaan yàlla Macky Sall dugal ci loxoom feebar bi denc xam nga mu ubbi lépp timit xam nga gars yi mën a ñëw dëkk bi neexaat comme ni mu neexee woon comme 2019 bi ni dëkk bi neexaatee. mais Mbaye di Fatou mën nañu ci làmb. non làmb moom ku gàtt fan ko gis quoi wax dëgg parce que instant bi moom yus. Ah. maa ngi ci yeneen affaire as dem yaa ngi ma yaa xam nga yaa ngi fil man daal maa ngi làmb nag mënu ma ci génn parce que dama ko bëgg sama deret la mhm. billaay wallaay barke Mouhamed Mbaye yaa ngi ci nag waaw loolu dëgg la làmb dama ko bëgg damay entraînement comme mbëri li ñuy dej damay nga no am naa sax du benn defet sax xam nga tey làmb tey mënoon naa ñëwaat bëre barki alxuraan kirim mais dama ne la Youssou bu doon jom fit ak doole mooy may nam wala ñaanu waajur dama koy am mais lu yàlla dundul ci yow da nga ciy métti daal lu gënul ci yow bu ko forcé te man du ma forcé amul mbër samay combat boo ko tegoon amul yëpp dama état amul bu ma ci arrière damay dox sa kaw def ba ay jigéen sax dama am combat ñu ma tey bul dem mais bari bi damay dem man lu mu am jël dama ci ñii ñëpp gis naa benn sec gis naa benn secret nag ci yow. xam nga ban secret laa gis ci yow waaw nga ma mbabat. waaw bu may bëri fii tournoi di foncé man ak ay segg xam nga ay gars yooyu xam nga di nuyuwaale Cheikh Samb bu baax. xam bi may bëree boobu ñëw nga. waaw Père Balla Diouf mii ma xëpp ay galaaj. dëgg la xam nga man tëlewuma bëre quoi mais tamit làmb des fois da ngay dugg ba ci bi doo mel doo xam nu mu demee. <laughs> barki alxuraan. billahi ah yow gis nga jëli ma doon daan gars yi. yow seetaan nga ko nekkul lu ñuy favoriser parce que nga ba sama a ba yaa ak Ibra Gueye yéen a ko bëgg di nuyuwaale Ibra Gueye bu baax yéen ñaar yéen a ko gënoon bëgg a tëgg fay ma kase bu baax man ko bëre su bëggee na liggéey ba ci kanam ñu bëre mooy la làmb ji sens la rek tey mën nga fi njëkkal lu neex xam nga mujjee loo xamante ne mooy loolu tey ba def mbërëm tey ba leen waxoon roi dañ naan est-ce ko jël la ñu wax mais yàlla buy defar day mel ne luy yàq mais man moom wax dëgg yàlla instant bi liggéey bi ma yor mënu ma ko booleeg làmb parce que làmb dafa fiir mm. làmb quatre heures war la fekk ci mbedd mi da nga war a dem salle di contact di yow fajar mais instant yi bu la njaboot wëree moom dépasse bi ak liggéey bi ngay seera daal. waaw noonu la fa demee daal. kon fi ne nii yaa ngi soxna. waaw maa ngi soxna waaw. <laughs> mbokk yi ah, yéen a ngi waxee rek mais dafa am benn secret boo xam ne dama ko gis ci mbay di foncé mooy que mbër yu bari nekk ci làmb di bëree des fois sax mbay mën a ëpp tuun mbay di dugg ci lamb rek waykat yeeg ñëpp ñi nekk ci làmb naan mbay di foncé mbay di foncé mais secret boobu mbay di foncé lan la. waaw loolu loolu lu juddu suñu juddu rek déggoo li ma la wax man nee naa la deux victoires la am am na mbër yu am sept combats Ramdaan ñaari victoire la am Fallou Ramdaan am na cinq mais bu ñu duggee ci làmb sama tur ngay dégg man su ma nee ci làmb kooku du ci man du ma ci ndamoo kooku ndimbali suñu borom la te ku bañ yàlla dogal da ngay sonn loolu yàlla moo ko def ci man te mun naa ne loolu moo ma yóbboo gàllankoor tey Papa Boy Djiné maa ngi koy nuyu au passage tey tamit am na am na mbëri góob géej waaye tur mais succès bi mu am ak kase ko bëre coow dafa am solo ci mbër mbër da ngay am coow ba pare doog am leneen ak leneen coow tey dafa baax ci mbër galaaju mbër dëgg mooy coow nga am bayra foo génn gaa yi bëgg gars yi dañu bëgg sa combat. sponsor yi la moo tax ñu daw ci làmb nag ku mel ne Mouhamed Ndao Tyson bàyyi bi mu teel a bàyyi làmb bi sponsor yi tamit dañ ko bëggoon Tyson lañ ci fay sponsor yu baax mais teel gi ñu leen teel a génnee làmb ji dafa gën a wàññi làmb ji ay baabooy ay Tyson mënoon nañoo bëre ba ci kanam ban dem ba bàyyi seen bopp parce que amul booy bi leen gën état. kon est-ce que jotul nag ñu dem euh, lu euh, xarti Mouhamed Ndao Tyson indi ko teg ko ci làmb ndax mu taaral làmb. yu mel noonu mu koy dox daal. CNG bi tamit ñi wax ci moom daal comme booy Malaka mii ngeen agressé tamit dóor ko bal mbër yooyu feebar nañ leen dimbali. mbëri feebar nañ leen dimbali Youssou wala. ba ci Zil Balde sa ba ci am na waa divorcé am booy boobu tamit xam nga instant bi ñi ko war a opéré bal baa ci ndigli ba léegi gars yi taaba taab pour faj ko te yaayam doo ko yaakaaroon loolu lépp gars yi dañ war a bàyyi xel na gaay jappale sen bop sino sinon ñom ñor ben association bo xamanteni dañuy dimbali sen bop parce que tay normalement gor sax waro feba di xaar ko la dimbali mais tay bo me ben kuréel tay bo xamanteni comme ça tay ku am problème ñu génnee jox la dinañ mëna dimbali mbeur bobu mais bala ñoo def dara rek soxla taxaw ta lolou du aduna ñu da ngay di dimbalante bo leen nekké tay bu ki amé ñaaru junneem joxe bi ki amé 20000 mille am joxe bu yagge bu ko dajalee day doon dara lu ko waral nag yi dañu amul métier mbeur da ngay liggéey liggéey yëfu noobul la am sa soxla faj ko dafa neex am sa soxla di xaar di xaar bàyyi góor fajal la ko wala Abdoulou wala keneen loolu amul chance da nga war a travailler yu am dara loolu mooy ko quoi pour man wala nga am soxla di xaar Iba Ndiaye di la fajal loolu naaysul xam nga gars yi nañ waar am jom di entraîner boo liggéey ba 5 heures nga ñaan dem dem entraîner ji soo wàccee teel a xëy dem saal xam nga après nga ñëwaat dallo boo dalloo dem liggéeyi sinon yàlla mën na boo demee na ba gis buntu bi tey Balla Gaye kan liggéey liggéeyam mooy entraînement yàlla teral na ko kon mbëri timit mbëri ndee nañ xool foofu daal moom bi muy débuté mécanicien la woon te mécanicien bi avant mu koy bàyyi dañ ko sonal bëri na ak maam góor Diouf sotti liggéey mécanique moo wax la secret boobu tey teel te dund succès bëri ay ndaanaan ñëw di bëri mbappat di ko jël kon mbëri nañu xool ci kooku ku ci xool moog Tyson rek yàlla mën na laa dimbali barki alxuraan. noonu la demee quoi. am na solo ndeysaan dégg ngeen ni mu waxee mbër am métier mbër day am ndax métier li tax mu baax mooy fii toll fii làmb toll nii nga xam ne làmb kale na làmb metti na ci mbër yi mu ci amul métier rek bu yàggee di nga xàddi wala nga def loo xam ne bëggoo ko def ëllëg nga réccu mais tey Mbaye est-ce que yow bàyyi gi nga bàyyi làmb neex na say fans. non am na ci ñum neex daal parce que ñoo tey ñu bëri moo toogee waxtaan ak ñoom tey ku ci mel ne sama doomu ndey njagama ni bu may bëri lépp ñëw ko débuté ànd lépp daan dem géej xam nga tey bi ma taxee ni ko bàyyi naa làmb mu ne ma lu tax nga bàyyi ne ko làmb dafay yóbbu suma alal tey sama combat ak Fallou daan def naa ci lu ne dem naa ba jaay sama rajo nekk pour ay sarax mujj gi dama dem ni xam am na am ragal yëpp yàlla la ko teg dem ba yoratuma dara ma ne li fi nekk dama koy dem def dem ñëw yàlla xañ ma ma xool yoruma dara ay bor topp ma ci ma bàyyi ko dama ko bàyyi 2013 2014 2017 ma takk jabar di liggéey ci ci dara du ma am dama koy may sam bopp kon daal rëcc nga loolu ci làmb non rëccuwu sax parce que làmb ñoo tax tey ñu xam ma te lamb ji moo waral tey ñu bëri di ma jaay te damay ñëw kan mbalaag la maay sa mbër nga jaay wala eh, mbay di ma xamee naa ko jaay ma kon lamb du ma ci du ko rëccu de mais dama ca amul wërsëg mais lamb teral na ma tuuti parce que am na ñu bëri lamb tax ñu xam ma am na ñu bëri tey lamb tax ñu xam ma man dama koy nangu lamb tax ñu xam ma parce que bu dee ñetti combat sax bëri naa ko mbay di ma sa turam xam nañ ko kon lamb moo tax ñu xam ma bu baax a baax damay sant lamb bu baax nag wax dëgg yàlla lamb moom ñoo tax xam ma mënu ma xaa bañ seg làmb làmb jaral na ma lu ne billaahi wallaahi wa taalaahi amu amul lu ma jaralul barki Mouhamed mais Mbaye euh, su ma la bëggee nag laaj benn combat boo xamante ne nii moo war a suqali làmb tey ñu ne combat bi taxaw na combat bu am coow ci diggante kan ak lay doon. ah moom ñëpp a ko xam liir yi sax xam nañ ko Ama Baldé Modou Lô. mooy combat bi. ah waaw Youssou kooku mooy Barça Real Manchester City Liverpool France Paris derby la. mais eh, benn combat boobu rek la. waaye benn combat boobu rek nga fi soog nga naan ma lan dafa am beneen combat bu doon soog. mais am na ñuy tudd Balla Gaye Boy Niang. waaye Balla Gaye Boy Niang bi. lu tax non dara mënu ko doon dër. loolu mënul doon dër bi yow Balla Gaye Boy Niang doo jël sa xaalis tey da nga naan Balla Gaye mooy daan yow wóor na la yow mi di ma Camara. mais Ama Baldé Modou Lô tey donc Modou Lô ngay jox favori mais cinquante cinquante la parce que ku xam bëre xam ne Ama Baldé day ñëw du xaar lu ko fi may da koy jël te am doole ci taxale la Eh, jërëjëf mbay <laughs> macha allah li nga wax ni eh, maanaam eh, du ñàkk am na promoteur yoo xam ne ñu ngi lay seetaan te di ngeen dina dox ci combat boobu ndax combat boobu comme ni nga ko waxee rek bari na coow diggante Modou Lo Ama Balde gars yi nee nañ derby la waaye booy Niang ak am ak Balla Gaye nit ñaa ngi ciy wax ne leen la waaye làmb la du lamb daal en tout cas daal mooy lamb ji ñaari combat bu ci taxaw lamb dana neex làmb dana soqali ko waaye tey nag li may laajte mbay mooy coow li am ci biir làmb. bari na trop ci diggante CNG ak promoteur yeeg mbër yeeg yëpp bari na ban xalaat nga am ci euh, ciow lool wa ciow li xama nga CNG bi ciow li ciow li gaay ñoo war wax ak ñoom man dama leen jébé ay problème digënté ay mbeur ak dag mbeur ak ay promoteur sax sama yoon neew ci mais mbeuri feebar nañ leen fajj baye mbeuri ko wax ñu aj la lool lañ ci wara jëlé tay degg la dégg dañoo jiri bëro Alioune Sarr dafa war dimbali nit ñi Zibale Junior dafa feebar dem mu ko ba écran plat yaayam la jaay ci li ndigam te loolu du yoon loolu naa sul yow tey. te moom mu jiite làmb waaw te moom mu jiite làmb booy bi jël écran plat yaayam dem jaay ko bala ngay deux bala ngay un mi ngi feebar booy booy Malika boobu ñu ngi ko dóor bal mënuñu ko faj di ko laaj bañ koy kete loolu du yoon lool gars yi ñoo ci war a jug booy bambara tamit xam nga père booy bambara bàyyi lu ne def ci làmb dama leen champion def rek lépp Double Less lu nekk lay def ci làmb Mor Fadam lu nekk lay def ci làmb. Ibu Ndafa Ibu Ndafa ñooñu. xam nga gars def ci làmb lu ne na ay bu naa ma rese ñoo ñëpp war a dimbali billaahi mais dëgg euh, kon day toog say doomu ndey euh, ku ci mel ni sëtub Samba Xoyaan def lu nuyu ko moom itam xam nga euh, laaj ko nan la gisee jotaay bi maa ngi lay nuyu sëtub Samba Xoyaan. auzu billah bismillah inni wala jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaar tey at ëllëg. tous maa lay ziar. waaw ah, di la naa ziar baax baax Modou tay nak ñu dara sa eh, doomu Ndeye Mbaye Difoncer eh, ci émission bi nga xam moy soxali lamb làmb dégg nga li wax mais tay lan nga lan nga eh, manam lan ngay métitlu ci carrière Mbaye Difoncer ci biir lamb waaw dadi di ndaw bu juggé di demat dolem at fitam at gëm-gëmam ndeysaan bu amul mag ñi ne ci ginaam rek pour mu sori du yom xeyna sa way lolo ko dal bi mi di dem ay moromam rek la andal gisul koo xamante ni moo gën a xaalisam investir ci carrière am koo xam ne moo bàyyi léppam ànd ak moom di ko coaché gisul kenn koo xamante ni mooy dox di tànnante pour mu amee combat di bëri te làmb dafa tool instant bi foo xamante ni ko amul bàjjan doo dem làmb fi mu toll nii laaj bi sa àdduna lépp looy dugg amoo branloo doo dem amul sax ma dem ñëw bëti métier bii bi ñu nekk ñun di job bu amul branloo da ngay gëm sa bop dem mais da ngay comprendre da la fi bàyyi dem lamb nak non la demee mantis fi ngay man disna boy booy yi bëre grand combat bu ma ko disee su ma ñëwee dama koy méré machallah amul kenn ko ciëp doolé ba ñi dama nako waron waroon mais nak bo dé borom jom nga am fo juddo am fo bok xam nga juddu maagi mel ni nga wara mel ke musula ko lamb waru tax ñu yab bu dé borom jom nga ngay bëre benn combat daanu boo ramee ñëw ñoo xamante ne doo nawloo woo leen sax ñu lay sànni xeer bu dee borom jom nga boo tëddee dangay ngay récupérer bàyyi te mën na tekki sans làmb man sama gan dama ko genn boo bëggee dëgg-dëgg làmb daf metti te yaa ngi bëre di ci investir sa xaay loo liggéey xëpp ko ci depuis yàgg na li mu def ci làmb bu ko defoon ci weñ dépassé na fi parce que Cheikhul Khadim ko koo àndal fukki atal lu teg na ko leen hasard ànd nañ maanaam moom baa as ba nii macha kon mën naa wax mën naa bind ci moom bible mais carrière am bi muy débuté bu amoon du débul dubul moteur am booy ndawi rek laa la wax ay arafas waxuma la ay boñaan ñooñ de boo yore staff ñu am ko sa amoon dem mais mbër boo amul staff doo dem yuusu da ngay rek waaw sa looloo ko dal ndeysaan waaw mbay li mu wax ndeysaan eh, mu mel ni kon loolu nag euh, su yéene sa carrière nag ñàkk ah, staff ak ay mag yoo yoo nekkal moom tamit dañu yàgg rek comme ni la wax rek moo damay bëreeg benn mbër yàgg na ma ko wax te dama koy wax ba nii des fois dañuy wanaan sax ni ma daye bi nga yor moo ko yoroon man damay doon mbër parce que bëri bi mi ngi ci moom nee na xam nga chaque jour dañ ciy warante ba ma naan ko mooy loolu te wax dafa nekk quoi làmb boo amul jàppale bu wóor man ñii laa doon am ñoo doon sonn samay làmb billaay walaay wataalaay xam nga dañ doon am combat tey ñuy dugg tey di taqale ay wecc di ket billaahi walaay wataalaay affaire yi métti woon trop xam nga bi ñu demee ba xam ne métti na nag xam nga tey ñu ni daal dañu ànd góorgóorlu bu dee teraanga rek lañ bëgg. gëm naa ni dinañu ko may dina ko may ñëpp nag. di ñaanal ñëpp am teraanga surtout maa yow borom baa nga trop yu maa lay ñaanal fi ñuy dégg ñoom Bécaye Mbaye la Lamine Samba ñoom Malick Thiandoum ñu fay dégg Rufisque TV tamit télé ñu ngi koy bu baax a baax. parce que rëbës yàgg nañoo am jom ku xool xandaalu ak ni doon supporté waa Yékini xam ne rëbës dañoo bokk ci ci ci town bi daal di lañ ñaanal tamit yow loo bëgg daal yaa xam yàlla na ko yàlla defal balaa déwén ñu dégg télé sore ci barki Seydina Mouhamed amiin amiin comme laaj naa comme nag laaj naa sëtu Samba Xoyaan eh, ah Moussa Wa Thiam faa mu laaj ko moom itam Moussa laaj Tafa bu Baye Karim quoi Tafa bu Baye Karim ah. eh, Karim yow eh, yow lan yow ci ay kàddu asalaamaaleykum di nuyu aduna di saar ñëpp di bëgg ñëpp man nag noonu laa mel ragal caméra mais ragal caméra quoi ah sama gis-gis dal mo bari looy seede ci sa doomu ndey mbay waaw suma xarit suma doom yaay li may seede ci moom mun na bari quoi mun na bari mun na bañ bari ndax yàgg nañ man ak moom ndax yàgg nañ man ak moom fekk ci mom lu bare bare bari manam carrière am lu bari lu ma ci ndaxte yàgg nañ man ak moom amaana man ak moom bokkuñu woon koñ mais dem na ba benn instant bi ñi ma indi ba ma dëkk ak moom moom ci la bokk kon carrière am mën naa ci wax lu bari waaw ànd nañ man ak moom mbapat daanaka fu bare bare bari ànd nañ fa indil nañu ndam bu ne nag ndam lu ne indil nañu ko. moom champion la nag ndax mën na bëri seetaan naa ko mbapat. ndam lu ne indil nañu ko. man carrière am fekke naa ci lu bari ah, mais bu demee bu bàyyi làmb tamit dama ci ànd ak moom ndax munoo di ànd ak ay booyu ndaw ñoo xam ne boo daanoo ñu jooy ku ci mel ne booy bi àll man làmbam kii rek laaj daan xalaat moom daaw moo xalaat booy bi laaj daan xalaat ndaxte da ci doon daj loo xam ne sa waaye day metti torop barki sëñ Fallou day daanu booy bi jooy mu daan booy bi jooy xam nga kon teranga du lamb rek la ko meuna jox mën nga ko amé fenen fudul ci lamb hmm. wéñ yi dafa neex jëne junni am ñaari junni lu ko daax te do dóorante mën nga yeewu faya dem entraînement ji jëge fa ñew so sa tëni dem liggéey loolu neex na teranga mën nga ko amé fenen fudul ci lamb aw di ñaanal lamb nak mu jog ci kaw ndax ñun dañoo bëgg lamb ret lamb moy daw suñu yaram daw suñu yaram di ñaanal àdduna feebar bi suñu boroom jëlee ko fi ba ñu nekk ca lañ nekkoon ñaanal ñëpp daal ñu am jàmm nga ñaanal yow it tele bi gaay di ko seen ca kaw a kaw barki sëñ Fallou yow jàmbaar nga yow te di nga am dara incha allah bëggee Youssou. <laughs> jaajëf ndeysaan dégg nga Moustapha moom nee na dafa ragal caméra mais moom toj na fi de li mu wax macha allah nice na nan nga jàngatee li Moustapha wax ndeysaan. moom tey. bi ñuy tay don won mbeur mais dem na tay bañ koy jaawaleeg ak mbeuri ki nga togo ni kan la. wa ki mom timit suma xarit bu baax la Mor baaw bëgg ñëpp. barki alquran mo moo male ak alame fo ngi wax quoi. ak duumee parce que tamit dañuy dañu yag dal xam nga tay manam dañu dund ak ñom lu yag Mor de di tamit nit ku baax nit koo xamni ci lu baax rek lay dox mom wax deug yalla nit ku baax lay du la sa Mor Baabu. mention spéciale moom moom daal jàmbaar la te tax ma gën ko bëgg dafa bëgg ay njabootam tama nit noo mënti mel boo bëgg ay njaboot rek sa waajur ñaanal rek man damay kontaan ci yow aca kon gi ñu wax Mbaye mu sànni cey kàddu mbay euh, ok Mor Babou dégg nga Mbaye li mu wax waaw mais Mbaye li mu lépp dëgg la ginnaaw ginnaaw bu sant yàlla jul ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa Difonse gépp ndax Mbaye euh, macha allah quoi man bi ma koy xam xëy na miinantuguñ noonu carrément comme nii boobu danaa ñëw làmbam muy bëree ñu daan ko wala mu daan mu ñibbi mais par rapport ak euh, bi ma ko xamee léegi bu yàlla defoon jàmm ba mu doon bëree dëgg carrément instant bi muy bëree boobaa lay xam ne kuy Mor Babou mais xëy na li ñu séq jamono ji moo dàq làmb ndax nit bu ngeen nekkee bëggante te yàlla tax muy tafaa di jazz di njaga ah àll ñoom ñëpp samay waay la yàlla yàlla yàlla def ñu bëggante quoi ci ñu doon ay gaayen di liggéey di yéenante loolu dafa neex quoi comme dab comme yow nii rek quoi waaw. waaw ñaan yàlla daal euh, xool nu ko waxee di sax euh, ànd bi gën a yàgg daal waaw di ñaan yàlla ñëpp am jàmm ak xéewal waaw. jërëjëf mbokk yi lii moo nekkoon seen émission Soxla Lamb du ñu def nag lu bala ñuy tàggoo ñu jox mbay xëy na du ñàkk am na lu mu dolli après mu dolli ko ci rek daal di tàggoo ñu tëj. waa li ñu ciy dolli moom xanaa mooy di ñaan ci réew mi jàmm man daal ko bi na am nañu investir ci dara tey ku ci mel ne suñ mbokku restaurant yi xam nga. videurs yi. xam nga borom boîte yi xam nga tamit lépp taxaw xam nga loolu metti na trop daal lu ñu mën a def da ba góor góor ba jëlee feebar bi. nañ ko fi jëlee làmb ji promoteur yi jox nañ avance. mbëri mënuñoo bëree am na ñoom seen xaalis jeex na. xam nga loolu lépp nañ ci bàyyiwaat xel. di ñaan ci réew mi jàmm nag. jàmm lu mu am doyul. parce que ay ndaw yu bëgg a dimbali seen waajur rek a nekk fii. fi amul kenn koo xamantene man bo gisee tay ma bëgg suma xarit yi may nyom ak ñom dañu am jom am jom moy kenn ko ne lu sa morom am ba nga ko am parce que xarit bu baax lolay jëriñ nit da ngay xol sa morom li mu def ci lu baax nga bako def lu bon nga bayyi na le parce que ku nekk tay bo sañon da ngay taral sa wajur muy lamb di liggey kep koo xamante ne nga taxaw say wajur yalla nako yalla defal nga taral say nday taral sa baay. képp nga xamante ne da sa waajur sa soxna mooy sa waajur nga jéem ko teral ak say njaboot man daa loolu laa gëm di ñaanal Reubeuss TV jàmm waaw di ñaanal suma doomu ndey njaga mële yàlla yëkkati ko bu baax a baax a baax ak Baye Gora Thiam Abdoulou waa difonse bépp parce que difonse yëpp benn la moom léegi laa ko def noo om ci lido bi <laughs> xam nga moo tax xam nga benn instant mooy loolu billaay walaay <laughs> di gërëm ñoom Pape Kase mm-hmm. xam nga ñoom loo sama xarit yi ñoom ngom daal mm-hmm. di gërëm daal adduna ku lim juum di gërëm sunu yaay ji di jaay kafe gi mer faye xam nga nuyu waa divorcé bi nga xamante ne vraiment ay nit ñu baax man divorcé lenn lañ ma neexee dañoo mën a solidarité te solidarité mooy adduna nit da ngay bëgg sax xarit bëgg ki nga nekkal xam nga mu doon dëgg ci yow nag tama lu newul ci man du ma ko wax parce que ragalu ma dara te li nekk ci mën rek laay génne man bu ma la bëggul nu ma la nuyu ma la rombee barki alxuraanu mais nag di ñaanal gaay na fi yëpp aliyaa bi ma nee naa la ñii ñooy sama waa ñii ñooy sama waa banque. parce que ñoom sere sere yi. maa leen nuyu ñoom ñëpp ku lim juum. waa ngali gi. parce que ay nit ñu baax lan sama carré dañ cee jàpp damay ñëw ñu may jox seen xaalis. may am dara. waaw yow moom. xam nga ni mu demee ñoo bokk terrain bi. champion nga télé bi tamit ñu ngi koy ñaanal balaa déwén. farambay mhm. ñu ngi koy ñaanal mu sédi ponkal yépp té man ponkal bu nga xamanteni ci mbeuri ni xamna sa numéro mhm. na la booleeg mom nga dem seeti ko billahi wallahi ñom ñëpp na la jox seen numéro nga dem dafa émission moy télé mbeuri wa moy tax Dakar moy lépp nga naan mooy télé mbeuri yi rëbës <laughs> ñaay cookeer xandaalu foofu day day ay man xandaal xandaal dañ ma jaral lu ne. ba déggal bàyyi góor nga ne. ma ne la Reubeuss TV mooy suñu télé ñun. waaw Reubeuss TV mooy. Iba nga ne. TV la doon wax. Ah. Reubeuss TV mi ngi ñëw dal seen kaw. na taxaw xaar ko. Youssou yow jàmm rek ngay am. nga ku ragal na daw Reubeuss TV mi ngi ñëw feebar ñëpp. dal seen kaw jël pee. parce que yàlla mën na ko waaw mooy loolu. ku ragal na daw Reubeuss TV mi ngi ñëw. dal seen kaw. amul mais ya, ah, corona corona sonn na quoi corona. corona dañu fott bàyyi Fall. corona xam nga corona ñu lay sàkku ñaan. dañ lay tuubaloo di la ràng <laughs> di la ñaanal nga dellu. xam nga ñu lay ñaanal kilifa yi fi nga dem dafa leer day ñëpp gaan barke Serigne Bamba. day Baye Fall yi. aca kon jaa ngeen mbokk yi lii moo nekkoon seen émission seen émission su xelam comme ni rek su Modou bëgg wax nga ne. Modou No kai no kai tok ni kai kai kai kai kai tok ni kai kai bu kaay toogal. nga ne bay di foncé. mbay damay wax kudé ak sa bàmmel mais dama wax sama digënté ak sa bàmmel. combat bi mu jëk teug bi mu jëk bëri man man man mako ko mako maa ko ngemb ñëw te xam nga rek am na yoo xam ne ko wax ci public ni mais mbay mako ko mako xëpp soobi mu dugg. kon da koy ñaanal. dama koy ñaan ya loo koy ñaanal. fan ndax mbay lu mu am bokk ak jaam ñi ak ñi mu liggéeyal mbay défense kenn gënu ko mbër la mais day daan dooleem te vendeur pièces détachées yi nekk fii au niveau Sénégal ku ci xamul mbay défense dégg nga ko ñëpp xam macha allah te mbay day daw di dimbali ay rakkam di ànd ak jamono yàlla na ko yàlla defal cat ak doomu ndeyam Tafa Thiam Pa Modou jiw mboote xale yi ñoom njaga ak xale yi ku ci lim jum waaw ok Youssou te yow mi tamit Youssou ñu ñaanal la nga yàgg ci télévision bi yàlla jox la kii ndax tubaab nee dans la vie un homme doit être sympathique et modeste te tu es tu es sympathique et modeste yàlla na yàlla jàppale mbay la daf mais lu la jaral non li ma jaral mbay cause de la vérité mbay tubaab dana un déedéet Olof Njaay na gémmiñ waxul dëgg rek wax fan boo gisee ma ciy wax grâce à mon cousin la kii papaam ak sama ñoo bokk benn papa te yow mi mbay bu ma ñoom Pa Modou jàppee sa xarit Tafa Thiam surtout Tafa Thiam ñoom njage ñëpp grâce à toi yow loo am da nga koy teg ci yoon mbay du ne làmb jële nga jël yow baala gay xam nag boo nee mbay di kii mbay défoncé baala gay xam ne la keneen ak keneen ak keneen ak keneen te mbay dama da ngaa def nit ci te yàlla tax. jàpp gàmbu neex mbay li nga gàmb bi nga ba wax mais Balla dama ne déet déet loolu de loolu nag yéen a xam du ma wax loolu aca <laughs> kon mbokk yi jërëjëf lii moo nekk seen émission euh, Suxali Lamb ak Mbaye di foncé fii ci di foncé xanaa di leen jox dig dajee ëllëg ci beneen numéro jaa ngeen jëfati